seen revue de presse bismillah démb day ah! am na ñoo xam ne di dañ te dañ ne woon dañuy defante ji de sur quotidien Dakar Ndiaye Diop day waaw ne suut la daloon kon 2021 bi la weeru mars ba amaat fi mar di tali ndax convocation Barthélémy Dias ca kanamu cour d'appel bi ci Ndakaaru Ndiaye Diop Atemba ak Ndiaga Diouf waaw daal di nañ koy nag ba benn fan ci weeru décembre bi di dik laa la wax waaye gis nga Barthélémy Dias Ousmane Sonko Alaaji Malick Gakou waaw dañ leen a jàppoon leen bàyyi ñu ñibbi <laughs> allahu akbar le quotidien yéene na de miti na de wi la ñu bokk waaw gars yi dal nañ seen kaw tàngoon na lool ginnaaw ga nag la sedd na nooy ndaxte gis nga kii di Ousmane Sonko a a eh a ah, ci Barthélémy Dias bi lé eh, ak Ousmane Sonko ak ba ci Khalifa Sall laa la wax parce que dañ leen a dóor ay grenade lacrymogène gaasé leen dàq leen teg leen loxo ginnaaw ga ñu ñibbi

yi taal nañ leen de baare tamit fee deen bi laa la wax ni ki démb waaw démb kay Dakar Times nee na ndakaaru njaajal joob daanaka dund na deuxième vague ba laa la wax aa waaw parce que nag gis nga tension bi démb foo ko na weesunu ko laa la wax ca péter seen gëlay waaw waaw waa bi ci boppam ñoo doon jéem a bloqué convoi kii di Barthélémy nga xam ne Ousmane Sonko kooku ngee démb ak Alaaji Malick ak Khalifa Babacar Sall yéene kaa gi ne même dee sax at bi waaw nee na gis nga date yi nga xam ne moom la ñu di premier décembre baaxul parce day tombé nag Barthélémy Dias nekk ci pré campagne ba et nañu waaw nekkul ne Barthélémy Dias wala say avocat ñoo sàkku nañ leen ko ak ñeneen ñi amuñu woon avocat ña ngi ñe patati patata dama ne loolee tegul fenn gars yi ci boppam ñoo bëgg a neutraliser Barthélémy Dias te kenn nekkul ci ginnaaw lu dul état ak wàllum justice bi ñooy man Khalifa man lan laa gaañu laa la wax maar day taali waaw ah ne xam nga ngay xalaat ne opposants yi mën nga leen a suul yow daal réew mi nga bëgg opposition bi ku ne di leen suul daal réew mi nga bëgg daal réew yow yaa bëggul jàmm yow direct news ne atew Barthélémy Dias ba day Ndakaaru njaay jël joob waaw mbir mi jax na démb de dama ne la journée démb bi lee ndaw yi ci boppam ñoo déterminé libéré kon seeni leader yu bokk ci yeewi askan wi dëgg la ay jàmmaarloo yu tar diggante militant attaque yi na ay gaañu gaañu sax laa la wax gis nga Médina Fass université kaay de dama ne la Barthélémy ak Ousmane Sonko Alaaji Malick Gakou waaw takk der yi dañ leen a loxo yóbbu leen ca camp Abdou Diassé ginnaaw ga lañ leen bàyyi waaw Khalifa Sall ne danañ continuer di xeex ngir wàllu manipulation jëf yi ñaaw ñi bu mu tasaaroo ci réew mi yéen kaay yi Fay bi ne waaye yeewi askan wi day seen test bi réussir nañ ko démb de maa la ko seen résistance bi dama ne am na lu mu jur moom kay nag bu doon xeex la ah askan wi danañ ko defante ñoom ñeng ñeng ñeng patiti patata waaw daw laxtu la ñu def di raser les murs yang xooba jatara ak Moussa Sow dama ne la daw laxtu la ñu def kenn gisuleen yéene day xamal nañ nguuru Macky Sall gi lu bariwul ci aatewu Barthélémy Dias bi lée nañ moytu xewoon xewaat réew mi di mars mars di taal Macky Sall kay fi nekk nii nag boo bëggee dégg dëgg 24 heures nee na sës na de Ousmane Sonko ne dama ne jàmm mënu fee am bu dee Macky Sall daal mi ngi continuer rab di jàpp nit ñi di Cheikh Boubacar Sadio waaw nee na diñ fii su Sénégal yëpp waaye jug leen taxaw Seybani Sougou ne Sénégal day waxtu yu nag jot na ngir njuuma lii ñu teg ko loxo arrêté ko njuuma lii ci boppam la ñu war a arrêté le mos l'observateur ne coowal Barthélémy ak Ndiaga Diouf waaw tey ma nettali leen nag lépp bi mu demee Cheikh Makiyu Sibi moo ñëwoon ca ate ba waaw nee na man maa yóbbu woon ñoom Ndiaga Diouf ca mairie bu Barthélémy Dias man Sibi garde corps Abdoulaye Wade laa woon waaye boobee ñun ay doon dox Barthélémy Dias yaakaar ne dañoo ñëw lañ ma woo téléphone convoqué ma par téléphone waa ji laaj ma sama adresse samedi le 6 novembre bii passé mu ne dina dikk ginnaaw ga mu mënatul ñëw parce otoom daa baan ak loolu yëpp ñëw naa te man tamit maa sàkku ngir buñ may atte samay avocat taxaw ñoom maître Sall te fii kenn nekku fi Barthélémy Dias ci l'observateur ne déggoo leen ma de tribunal laadul delloo di Macky Sall day na nooy Macky Sall na nooy la wootee ku dem jàmm la raati de fi nekk nii ah, préfet ci boppam moo ñu tegul ci condition yu baax waaye ñun minuit zéro heure fii ci préfecture bi la fekk mu ñuy teg pression Aliou Sow Ndiaye nee na xew ci Pikine gii kenn mënu ko nangu inadmissible laa la wax magu ngir éliminer ñu duñ ci d'accord yéene kaa gi ne waaye yeewee askanu Pikine googe dugal nañ recours ca tribunal ba de le quotidien yéene kaa ne waaye yeewee askanuy maatam lañ bëggoon mujj nañ koo am de dañuy bokk ci élection yi de parce que maar day taali xudur jaw mi leen jiite waaw nee na parce Sall ak wàllum investiture yi boole responsable réew mi ci seen waxtaan ya te waa Benno Bokk Yaakaar def nañ erreur bu rëy tànn bi nga xam ne moom lañ tànn maire bi Beydi Ba nga xam ne daa impopulaire nit ña xamuñu ko Beydi Ba tojul fenn xudur jaw ci 24 waaw nee xaw ma kande mais réew mi Médina Gounass danañ def seen kémti laay kattan ba Alioune Sall mi la ñibbi géejawaay Mansour Faye écarté mënu taw ñaan termine yéen a kaay ak vox populi ne boulanger yi day lakkatu mburu ya commencé waat nañ tey yéen a kaay gi ne xale yi nga xam ne dañoo am jabet xale bu ci feebar ñaari semaine topp toowuñ ne da ngay dee allahu akbar te ci ay gone daanaka jabet bi dugg leen fii ci Sénégal réew mi quotidien ne waaye ndakaaru njaay jël jóob ñii xaru moom bari nañ de lu tolloog téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay doomu aadama góor ñu ci bari moom seen xaru yëpp a nañ leen ndomb ci ndakaaru njaay jël jóob daaneel leen fukk ak juróom ñaar ci ay xale jigéen yoo xam ne dañ leen a roon a yóbbu la wax ca Oman ak ca Beyrouth daaneel nañ leen Abdoul Fofana benn Sierra Leone ko jàppee allahu akbar ca ñeenti jigéen ñoo xam ne nag maanaam ñoom la tooñ ci coowal passeport diplomatique ya waaw atekat bi convoqué na leen de deuxième cabinet ba waaw yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne loi de finance day tey nag ma jox leen ay secret waaw Abdoulaye Seydou Sow ngir mu defaraat cadre de vie yi moom it laalal nañ ko 42 milliards laay lay la laa Abdoulaye Diouf Sarr ministre santé ah moom it yokkal nañ ko 19 milliards ay laay la la milliard milliard milliard milliard ndaw lu bari <laughs> waaye milliards yi de ak lu ñu bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari te Macky Sall ak Antoine Diome waxuñoo kii naan suñu pétrole bii milliards yi jëriñul dara parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko bi tere rek boo rek ma ne la nag tension bi di gën di ñagas ci terrain bi kàddu gi gën a dëgër ci diggante ñaari camp yi laata ñu koy waxtaanee ci commentaire yi dañuy dem àndax waa coalition euh, bu euh, benn bokk yaakaar ñoom démb ci boppam amal nañu genn taskatu xibaar yi di rafetlu euh, mat ga nga xam ne nee nañu waa Dakar noonu la ñu matee ba toppu ñu ñafare ci kujje gi doon fa amal ak yëngu-yëngal kon nag nee na ñooñu la ñu bëgg moo di taal réew mi te du fi te du fi amee waa li faal yoroon seen kàddu ñu teewlu ko Alassane Balde. waa Dakar yi waa Dakar yi rawatina ndaw ñi amul ku leen topp ci jéyee boobu bu doon loo xam ne dañ koy rafetlu ndax wane na na léegi population Sénégal yàgg na gaaw mais ndaw ñi en particulier dañoo yeewu xam nañu ñi ñu war a topp ak ñu ñu warul topp ndax balaa ngeen ne naam ne fa ndax dañuy fàttali ne li fi amoon mars doon na jéye boo xam ne kenn door ko nangu fii ci réew mi ba tax nag ñëpp dañoo toog seen kër wala ñu am soxla doxe seen soxla n'est-ce te kenn jotu leen bundu xataal acca le député du peuple ban jàngat ngay def démb ci dafa xewoon ndax sortie nga xam ne jot na am euh, Barthélémy Dias Ousmane Sonko Malick Gakou def nañ point de presse gis nga également waa benn bokk yaakaar sortie bi ñu def xam nga la moo gënoon maam bi ñu woowee Barthélémy Dias ñu mm-hmm. bàyyi mu dem mu dem mu euh, tribunal ci anam gu yomb mm-hmm. ànd ak ñi nekk ci ginnaawam mobilisation wala déet euh, de toute façon ku ñëwoo woo di nga ànd ak mbooloo dem wuy ji surtout bu fekkee danga nekk ci wàllu politique et puis bu ñu fàtte ni Barth dafa dafa mën a politique. comme ñi nga xam ñoo nekk ci nguur gi dafa xam politique. xam na nan lay def beneen bi ci des mooy faw ñu dellu soit ci wàllu histoire euh, président Macky Sall moo jëkkoon a dénoncé attaque bi ñu mhm. attaqué woon Barthélémy Diaz ci meereem euh, ba noppi attaqué ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci ginnaaw financement boobu financé ay nervi bi mettre leen ci ay conditions yu ñu demee attaque ñu maire jàmbur ci jamono jooju mu egg jugé woon. libération wu Barthélémy Diaz ak Babacar Noël Seck ba noppi itam yoon def liggéeyam te dossier bi ñu gaaw vidé ko ndax daf ko daf ko jàppe woon lu vide 2012 euh, ak 2022 pratiquement fukki at lu fi mën a soppeekuwaat baxte ci diggante bi nekk na fi maire ñaari yoon nekk na fi député benn yoon yooyu yëpp nag kon euh, bu ñu ko bëggee yeesalaat ginnaaw bi mu fësalee candidature am dafay poser problème def nañu mobilisation defuñu mobilisation de toute façon perturbation am na dému ci Dakar. Mm. xëy na bari nañu wala bariwuñu wala li ñu foogoon am nañu ko wala amuñu ko gis nga position bi loolu nee naa civil du arrêté civil way takk der yi aussi ci ni ñuy intervenir ñoom ñoo ñoom ñoo xam ñoom ñooy force de l'ordre ñoom ñooy indi ordre mais ordre bi moo nekkoon accompagner Barth mu dem tribunal. mais est-ce que est-ce que dañu dañu koy dañu ko arrêté ci yoon bi pour mu bañ a jël notification avocat moom moo koy jël certes informé nañu ko mais am na droit parce que dañ ko convoqué. bu ñu ko waxee convo convoqué waatuñu la parce que renvoyé nañu ko est-ce que way takk der yi ñoo koy jox information bi wala ay avocat ñoo koy jox de toute façon bari na ay def lu ma neex ci biir bari na ay def lu ma hmm. neex ci biir beneen bi ci des muy fi may waxee moom laa waxoon démb ci ci Barth c'est-à-dire que dem gi bu fekkente ni bi yow noppeetoo pour dem tribunal waññeekuwaatal dellu soit ci sa siège mais pas saagante ak bras de fer ak way takk der yi parce que déjà yow ci début bi ñëpp nee nañu waruñu la sàkkal ban yoon ngay jaar te nag gis nga nguur gi faaw ñu bàyyi loolu faaw ñu bàyyi bu ñu convoqué Mame Mbaye Ndiaye mu jógee Tëngéej ñu ni ko doo aw ci route nationale péage bi ngay jaar pour mu gën a gaaw ki mhm. ñu convoqué duñ ko utal yoon bu muy jaar wax dëgg yàlla surtout homme politique nag bu fekkente ni bi mënta def benn mobilisation amul benn homme politique buy daas paaka di ko jox nattangoom tëdd mhm. digg rendi donc kenn ku nekk tous les moyens sont bons loolu moo tax élément bi nga mujjee jàllale pour équilibrer information bi muy waa Benno Bokk Yaakaar la mu leen tax wax ci yëf yi parce que jàpp nañu ni xëy na ñii li ñuy yëndoo démb mun naa def def buzz ci ñoom yokk seen sympathie moo tax ñoom itam ñu génn def ay précision liberté boobu ñu am moom la beneen beneen politicien am liberté boobu de toute façon politiciens yi moom jàpp nañu réew mi otage. voilà euh, euh, El Hadj euh, est-ce que tam duñ duñ xoolaat ci beneen angle jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma sànq maa ngi koy ci kalaamay nasaraan xam nga ne ndax opposition bi warul mën a soxla ak dal jamono ji ak élection yi ñu dëgmal procès bi le premier décembre la. janvier moom la ñuy dem ci élection yi bu ñu may buntu nguur gi maanaam gannaaw ba ñu yeewee fit na ngir ñu mën a dàq élection yi. waaw je pense que dafa am loo xamee ni. Euh, d' abord dàq élection yooyu moom dañ naan il est hors de ñu koy def. parce que néew bi wees na buus. Euh, li tax ma ne la. il est hors de fu dëkk bi di yëngoo. mais mais mais Mambay. buñ ko sabab xamul lu ko waral. xamul lu lu waral. dëkk bi mhm. mënu fee yëngu yëngu bu dàq élection. il ne faut pas li ñu naan donner un prétexte. Mhm. à l' organisateur des élections pour dàq élection yi. mais il faut pas également li ñu ñuy wooyee prêter le flanc ba pare se laisser divertir. su ma nee se laisser divertir mooy tey l'opposition ne doit pas se laisser divertir mooy lan dañu am benn cap boo xamee ni dañu wax ni fu lañ bëgg àgg muy mhm. élection yi ñu ne dañoo samp seeni euh, nit ci gox yeeg goxaat yi pour remporter ko parce que comme ni ko ñeneen ji di waxee dafa nekk benn genre mhm. euh, euh, premier premier tour ay élection présidentielle yu 2024 mais se laisser divertir wala ñu bàyyi la yow nga dugg ci seen jeu ñu ngi mm-hmm. jeu politique parce que ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi manipuler yaa ngi manipuler mm-hmm. yaa ngi yaa ngi fo yaa ngi jouer comme bu doon échec dañu naan ku ci nekk am na ku féetee ak eh euh, li nga xam ne moom mooy pion yi euh, yu ñuul yi am ku féetee yu weex yi wala beneen couleur mm-hmm. muy opposition muy pouvoir maintenant nag dans ce jeu là qu'ils sont en train de que ce sont des hommes politiques ñëpp euh, ku ci nekk da ngay seet nag ngay def ba mën a engranger le maximum mhm. euh, euh, de sympathie nga xamee ne après danga nga koy traduire en voix bu fekkee dañ dem ci ay élection di nga seet nag ngay def pour mën cee àgg mais mhm. euh, il faut éviter de se de se laisser divertir parce que yow pendant que yaa ngi nekk di xuloo di xeex ci ay manifestation ci Dakar wala feneen mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi ñoom ñoo ngay dérouler donte nekkuñu ci campagne électorale. Mhm. mais ci yeneen gox yeeg goxaan yi ña ngay def jamono ji ay porte à porte di euh, def ay meeting di woote et cetera pour mën a am le maximum euh, d'électeurs bu ñu demee ci élection yu ñu dëgmal donc il faut que muy opposition bi surtout ñi nga xamee ni tey dañ leen joxoñ jàpp ni peut-être mën nañoo am dara ci euh, yenn ci ay localités yu ci mel ni ci Dakar mais nañu yenn yi da nga koy sax gëmm. nga nekk ci li nga xam ne moom mooy priorité ci yow en tant que homme politique di am looy dagaan ci baatu askan wi sa priorité xam nga may lan mhm. fexe wane ni war ngeen maa fal mhm. war ngeen maa votel bu ñu demee ci élection yi ñu dëgmal parce que man maay solution génne lu ñu wooyee peut-être programme par rapport ak euh, mhm. commune wala ville bi nga bëgg a diriger ak yeneen ak yeneen mais euh, euh, bu ñu toppee rythme Benno Bokk Yaakaar nga xamee ni bon je vais rejoindre un peu mu wax lu seen yoon ci mbir mi luñ ko mën a waxee c'est juste comme je disais tout à l'heure ku ci nekk yaa ngi seet nooy engranger le maximum mhm. euh, ci wàllu politique euh, tu tires la couverture sur toi nuñ ko mën a waxee pour mën a seet bu ñu demee ci élection yi nga ne gis nga waxoon naa leen ni diw euh, dafa violent wala diw fitna la doon bëgg man bëggumoon fitna lii laa bëggoon votel leen ma ce sont des politiciens qui jouent mais attention peuple bi ñoo war a toog xool xàmmee ndax kii day foo di foye suñu dund tey di foye suñu avenir te tamit am maturité sur le plan politique boo xam ne day tax ba du n'importe qui mooy ñëw wax la n'importe quoi nga gëm ko ñu àddu jëmale bi la yoon ci euh, recours yi nga xam ne jot nañu ko dugal ak cour d'appel bu Saint-Louis jot naa nag nangu yoonal liste bu Yewwi Askan Wi samaat am buñ sukkandikoo ci juge électoral ba nee na nag mandataire national bi di Déthié Fall am na droit daal di nag maanaam changer mandataire bu fekkee teel na ko yëgal euh, autorité administrative yi cour d'appel ba nag mu ngay sàkku kon ci autorité administrative yu Matam ñi daal di nangu euh, mboolem liste bu coalition ba euh, ñu ànd seex maître Abba Talib Gueye avocat bu Yewwi Askan Wi ba rétablir nii seen droit lu war a mën nekk nag te moo mënu te lool rek moo mënoon nekk moo di li ko waral euh, nit ki bu la joxee mandat bu ko neexee mu jël ko nit bu la sante tam jox la mandat bu la neexee démissionné te kon te ñu ngi woon ci biir temps bi ki nga xam ne moo war désigné désigné waat kon préfet ak ñoom waruñu woon am benn droit pour refuser ko waaw ñu sant yàlla nag ba nga xamee ni li ñuy wax le droit a été dit la cour d'appel defu lu dul appliquer li nga xam ne lu waax moom la wax. rejet yu list bu euh, euh, Yewwi Askan Wi sa mbuur it ñu ngay xam ne ne kon cour d'appel ba ci boppam euh, mujjul ànd wala bokkul ak gisin ak préfet ba waaye ba tey ci liste boobee mu mel ni kon nag Déthié Fall jot na saa yëkkati ay kàddoom mu ngi koy rafetlu moom mandataire national ba démb la ko xam ne si janoo ñu woote woon ak taskatu xibaar yi ñu teewlu doog ñëw waxtaanee ko. enterrer cette opposition Mahmoud Saleh loolu nag la nekk di parce que gis nañu la machine électorale bi Yewwi Askan Wi commencé teg sur l'étendue du territoire national et may gërëm di sant di joxe en exemple les magistrats de Saint-Louis c'est des magistrats yi nga xam ni seen tur anal war na ko jàpp ndaxte cour d'appel ba foofu ñin fa dugaloon comme recours ñoom suivre nañu accepter nañu yeewi askan wi que ñu ñoo nekk ci yoon kon nag li ci des mooy wax ji mënatul bare ndaxte waxtaan bi am na déeyoo bi am na mais président Macky Sall jàpp naa ni jàpp nañu ni bëggul jàmm. Birahim mu mel ni kon jamono ji ak soppite mi nga am jëm ci liste yi ñu rejeté woon. Euh, def euh, mhm. je pense maître euh, Abatalib wax na ko juñu na ko xam nga lan mooy précision bi. muy ca euh, maatam muy ca Mbour également bi nga mujj wax la précision mooy ni euh, préfet dañoo ñëw benn mandataire yeewi askan wi ñëw ci préfet pour indil ko dossier wu yeewi askan wi ca localité ba ñu dem ba ci biir mandataire boobu daw yóbbu euh, li dossier bi ci li wax yóbbul ko fële ca maatam par exemple yóbbul ko Farba Ngom léegi préfet bi ca ba ñuy ñëw ne ko diw mooy mandataire pour yeewi askan wi diw mooy mandataire pour gëm sa bopp diw mooy mandataire pour Benno Bokk Yaakaar moom dafa ne man loi li ma jox mooy mandataire bi ñu ma jox moom dong moo am sañ-sañu ñëw jox ma euh, li nga xam ne moom mooy dossier ci élection yi mais mandataire ba waroon a yóbbu dossier bi bu dawee ak dossier bi wala ñu dem ba ci biir Euh, bureau préfet bi mu ne léegi nekkatuma ak yeewi askan wi wala nekkatuma ak gëm sa bopp comme ni mu dalee ci yenn ci ay coalition léegi dem naa ci féete ci nguur gi mais préfet foofu dafay am problème problème am mooy lan est-ce que coalition bi nga xam ne moo ma yabaloon mandataire bi mën na ma yabal beneen mandataire préfet ne du ma du ma nangu beneen beneen euh, dossier cour d'appel nag ne ko attention di nga nangu dossier bi mais nangu dossier bi ça veut pas dire que d'accord nga ci li nekk ci biir dossier bi léegi cour d'appel li mu tranché muy ci Saint-Louis muy également ci Mbour mooy nangul nañ la yow coalition Yewwi Askan Wi wala gëm sa bopp wala beneen bu mu mën a doon nangul nañ la da mandataire ba nga fa tegoon mu war la ci dernière minute bi kooku léegi effacé nañu ko léegi mu enjoindre préfet bi ne ko amoo sañ-sañu bañ a jël mandataire bu bees bi nga xam ni moom lañ fa indi donc ak dossier bu bees bi nga xam ne daf la koy jox parce que ku ko yoroon daw na ak dossier bi cour d'appel loolu la préciser ne ni kon le préfet dafa weñ loxooy préfet ne ko ci yoon li ñu wax mooy danga nga war a nangu dossier bi léegi bu xësee ba jël dossier wu Mansour Diop nag mhm. préfet bi léegi am na sañ-sañu xool ndegam mhm. am na conformité par rapport ak code électoral bi li ñu ci wax di maanaam est-ce que am cinquante cinquante pour cent ci wàllu parité est-ce que euh, tur yi ni ñu ko bindee baax na est-ce que euh, numéro d'identification yi ñu ci dugal baax na léegi mu xool li ñu doon dans le fond du dossier mën na am motif de rejet comme mën na nangul euh, coalition bi nga xam ne moom moo indi ce nouveau dossier avec un nouveau mandataire donc ça veut pas forcément dire cour d'appel du moom moo jugé na ni par force dangay ngay nangu dossier bi mhm. ni donc que Mansour bi nga xam ne candidat la ca mbuur day jàll non non cour d'appel dafa ne Mansour dossier bi mu indi woon am keneen Mambay moo indi woon dossier wu Mansour waaye mu daw dax euh, euh, mm-hmm. laxoog dossier wu Mansour Mansour am na sañ-sañu indi moom ci boppam wala mandataire beneen dossier te dossier boobu dañ koy càmbar ni ñu waroon a càmbaree beneen dossier ça veut donc dire que euh, li ko day valider non le préfet peut ne mm. pas valider la listan ou le mais dañ ko jox obligation recevoir dossier bi. mais il faut savoir Ibrahima aussi que même préfet du moom mooy kiy jël décision finale ci même validation liste. gars yi dañuy gars yi euh, souvent. Euh, souvent est mhm. wu seen pouvoir. souvent pas parce que code électoral moom moo ko fësal. code électoral moo xam le ni. Mm. Euh, kii di préfet moom la ñuy yóbbul. yóbbul préfet wala sous moom la ñuy yóbbul dossier bi. léegi moom mu xool conformité wu dossier bi. Mm. ak li code électoral wax ci wàllu. dossier bi nii la war a mel lii moo ci war a am liste yi diw Euh, numéro téléphone xaw ma euh, carte numéro carte d'identité ñu mën a localiser ni Mansour mhm. Diop mi fii la dëkk loolu yëpp dañ koy préciser ci biir di joxe ñu koy ñu koy mandataire bi di ko yor ciy bind à chaque fois à complet mhm. pour que complet cest dire que mooy dossier bi mhm. mun na am lu ci manqué loo xam ne am nga possibilité mottali ko tout à fait te dañoo gis gis nga Birahim nag ren li am ci ay dossier ci élection locale suñu préfet yi dafay wàññi crédibilité suñu administration territoriale yi nañ waxante dëgg bu fekkee préfet nee na du ma jël ñu ne ko noo yoon waxul la doo jël de yoon daf la ni nga jël préfet daa juumoon wala politique moo taxu mu ni du jël mm-hmm. benn Sam Notaire ak Golf ja Guédiawaye dañu rejeté woon listu yi Askan Wi validé waat nañu yépp mm-hmm. lu xew ci diggante bi su préfet bu parcelle dañu woon Adama Faye su sa couleur bii dafa niroo ak bu APR Sénat bi ni ko li nga wax noonu sañoo ko di yow yaay jël décision ci niroo wala déet. mais attention ci foofu juste une précision. Mm -hmm. euh, ce n'est pas le sous-préfet moom moo jël décision boobu sous-préfet xamul lu mu wax. bu passé la CENI par exemple boobu. li mu préciser waat après. waaw ci ci dans la précision mhm. en fait c'est pas moom ci boppam moo indi wàllu couleur mais coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñoom ñoo ne. coalition bi di euh, suñu gox euh, ànd defa suñu gox. waaw defar sunu gox dañoo nuroo ak ñun couleur donc day am benn euh, dañuy suspendre décision wu dañuy jàllale liste boobu ou pas parce que une seule personne moo am sañ-sañu ci wàllu couleur ak sigle. Mhm. jël décision. wala arbitré. Mhm. muy le mhm. ministre de l' intérieur. alors pas mais mais xam nga bu début gànt loolu précision la après. yu mu gàntalee ba noppi. di la que Sénat recadré waat. li am Mbour la même chose donc boo seetee yooyu yëpp nga nga dajale ko dàmbale est-ce que njuumte la. Mm-hmm. misaalu li ñu rejeté listu benn listu gëm sa bopp fii Dakar. 45 mm-hmm. 45 ñu ni non da nga waroon def 55 35 xam nga yooyu yëpp ay détails la yoo. xam ne doon jubbante ñàkk a respecté la li ñu bind ci suuf ci à complet boobu noonu. c'est-à-dire que mm-hmm. bu ñu déposé ay liste su préfet ak préfet ñoom ñooy jël mais jàppandalal mandataire bi. mu mën a complété waat loolu moo mm-hmm. indi pratiquement ay quelques duos ci listu euh, mairie bu Barthélemy Diaz mm-hmm. ci digganteem ñoom ak waa Pastef ah, ci biir benn coalition Yewwi Askan parce que dañu ni Barthélemy changé na def na nii parce que entre temps dañu changé mandataire mm-hmm. def ay changement ci biir bureau bi te loolu yoon moo leen ko jàppandal dafa am na ay préfet ak ay sous-préfet yoo xam ne dañ koo bañ te bañ googu moo fenn moo tax nag abusé boobu ci wàllu pouvoir bu continuer dafay wàññi ñoom seen crédibilité seen diggante ak politiciens yi mhm. lu am lu am solo jàngat bu am solo dañu yàddu jëmale ci leneen lu soxal bi la jotaay xibaar SAES euh, seen coordination euh, campus bu Dakar dañoo rek décrété ab euh, grève ñaari fan 48 heures door nañu ko démb ak tey ji si alxames ci lay doon syndicat autonome des enseignants du supérieur ñoom ci boppam ñu ngay ñaawlu tekkaaral gi ñu nemmeeku ci nguur gi jëm ci seen i jàmbat bokk na ci jàmbat yooyu ñu finaliser adoption bu texte de gouvernance des universités ñu ànd seex seen coordinateur boobee di Abdoulaye Dieng SAES dafa déposé woon si table gouvernement bi ay ñaxtu léegi nag dafa décidé li nga xam ne pour ñu saafara ñaxtu yi dafa décidé dem en mouvement de grève bokk na ci tey ak suba soo loon xayma tous les campus yi nekk Sénégal tey dafa am débrayage maanaam kenn du jàngale lépp luy tâche administrative dañ ko suspendre suñu paree nag dinañ déglu gouvernement bi suñu amul lu leen nag le SAES se réserve droit aussi de continuer la la grève. CNTS/FC authentique am nañu gan gu yees gu leen fekki si daal di nag adhéré mu di syndicat des travailleurs des universités du Sénégal secrétaire général bu CNTS/FC authentique moom Baxaw euh, mu ngay xam ne ne kon daañu def seen kéem kattan ba lépp lu ñuy liggéey ak tëddee ñaaxaanaay daal di si am ba noppi daal di leen di wanale maanaam visibilité euh, lépp nag mu ngi nekkoon ci teewaay ak Mouhamed Diop Madani Marega. syndicat bu bees judd na ñu di ko wax SYNTUS syndicat des travailleurs des universités du Sénégal li ko tax a jóg nag du lenn lu dul taxaw ci jafe-jafe liggéeykat yu nekk ci université yu Sénégal. li tax ñu samp syndicat boobu ñun ay liggéeykat lañu ci université boobu. nekkoon ci ay syndicat. encre bi de. <laughs> tey dafa nga niir. <laughs> comme da nga maa yoxoo su mat na liggéey. damaa fukki bataas Sénégal tey jii la. waaw kon tey jii nag ci ngoon bu 19 heures jotee foofu ci stade Keke bu Lomé. Sénégal nag fas yéene si jàkkaarloo ak Togo jëm nag ci juróomi juróomeelu bëccëg éliminatoire Qatar 2022 muy coupe du monde bi jàppale nag Sénégal moom jot na nag qualifié ci ñaareelu tour bi waaye teewul nag Aliou Cissé ak ñoom dinañ nag amal taxawaay gu am solo seen diggante. Mhm. ak équipe bu euh, Togo ndaxte bi la jogante sax dina tax équipe nationale bu Sénégal gën a mën waa nag waajal lu jëm ci wàllum coupe d'Afrique des nations ñu fas yéene ko amal ci weerum foofu ca euh, Cameroun dañ ciy teewlu Aliou Cissé ci conférence de presse avant bi. Euh, tous les matchs sont, sont difficiles. Je crois que le danger pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match avec du sérieux avec de la concentration sur. match yi ñu football yëpp benn yomb ci kon nag euh, suñu diggante ak Togo dinañ def suñu kéem kattan ba nag aborder ko ak sérieux ni ko noonu tamit concentration gu mat sëkk Togo équipe bu baax la li koy firndeel mooy dafa dem ca Congo daan ko te nag waxtu yi day bëgg wëyal ci yooyu la performance li ni mel di wane ne suñu digganteeg Togo dina nekk match bu neex comme jot ñoo qualifié ba noppi nag muy jogante Togo ni ko noonu Congo dina tax équipe nationale waajal bu baax a baax Coupe d'Afrique des Nations bu jëm temps gàtt na loolu boo moyul préparation bi day gàtt kon yi la jogante dinañu tax ñu gën a xoolaat suñu taxawaay balaay boobu les compétitions. du fait qu'on s'est déjà qualifié je pense que ces deux matchs là que ce soit contre le Togo bi dimanche contre le, le Congo doit nous, permettre de préparer cette cette très importante qui est pour notre pays. éliminatoire ba tey coupe du monde bu Qatar bi tey jàmm na yeneen jongante. waaw am na yeneen jongante nag jàppal na ci groupe e bi kon Mali moom tey jëlee nag war na mën a nag qualifié jëm nag ci ñaareelu tour bi waaye nag lépp day dépendre moom Mali mi nga xam ne moo nekk. Euh, mu am mu nekk première place bi jël première place bi ci euh, groupe E bi ak fukki poñ kon tey bu daanee nag ñi di waa Rwanda ci beneen wàllu wa Uganda mi am euh, juróom-ñetti poñ moom foogee dafa daanu ci kanamu Kenya nag moom mun na nak qualifié kon Mali Rwanda loolu nag bu 16 jotee lay doon Uganda di fàttali ni moom moo fas yéene nag laale ak ñi waa Kenya bu 13h jotee beneen duel tamit à distance war a dox nag ci diggante Afrique du Sud ak Ghana Afrique xam ne moo nekk ci première place bi ak fukki poñ. moo fas yéene dalal ñi di waa Zimbabwe loolu bu juróom-ñeent wax tey ci ngoon la Ghana moom nekk si ñaareelu place bi ak juróom-ñeent poñ dina laale ak ñi di waa Éthiopie loolu bu 13h jotee lay doon ci groupe bi RD Congo ñetteelu place bi ak juróomi poñ moom dina laale ak Tanzanie mi nga xam ne moo nekk ci bopp euh, groupe G bi ak juróom-ñaari poñ Bénin am ñaar nekk si place bi ak juróom-ñaari poñ moo fas yéene nag laale ak ñi di waa Madagascar groupe H bi nag di fàttali ni Sénégal ak ñi di waa Togo. 19 heures la foofu ca stade Keke bu Lomé 16 diggante nag Congo ak Namibie lay doon. ñu wax du jëmale ba tey ci éliminatoire bu mondial 2022 sa Europe am na fay jongante waaw Europe nag ñoom seen juróom-ñeenteelu bëccëg nag tey la ñuy wëyal ak ay jongante yu am solo sax jàppal na ci groupe A bi 17h nag Azerbaïdjan moo ci dalal ñii di waa Luxembourg 19h45 Irlande la ak ñii di waa Portugal Portugal nag moom tamit tey foogee am na ndam mën na ko permettre mu qualifier. ci euh, boobule euh, coupe du monde ci euh, groupe B bi nag 17h Géorgie ak Suède la 19h45 Grèce ak Espagne Espagne tamit faw nag mu gën a mën a defarwaat seen diggante ak Grèce ngir mu nag mën am chance ngir dem foofu ca Qatar 2022 groupe H bi 17h Russie ak Chypre la. 19h45 Malte mooy dalal ñii waa Croatie Slovénie moom day dem foofu ca Slovaquie groupe J bi ak Macédoine du Nord la 17h 19h45 ci diggante Allemagne ak équipe bi di Liechtenstein la Roumanie mooy dalal ñii di waa ca nag euh, zone Amérique du euh, Sud seen nag fukk ak ñetteelu bëccëg la ñuy nag euh, tàmbali ni que tey vingt et une heures Équateur moo ci daral Venezuela vingt trois heures Paraguay la ak équipe bi di Chili. ali Cissé mbégte la am ci la ñu ko tànn ci ñaar fukk ak juróomi technicien de l'année. waaw mbégte la ndax gis na ne kon daal liggéey nag bi mu amal ci bopp équipe nationale bu Sénégal am na solo loolu mu ànd ci nag ak staffam ak niki noonu jàppandalu fédération bi ak ministère de sports mu jàppandal li mel. day firnde ni daal euh, équipe nationale bu Sénégal liggéey bi nag moo ngi woy bu baax a baax dañ ciy teewlu ak di Aliou Cissé. c'est une fierté c'est une c'est une reconnaissance pour euh, nous un sélectionneur n'est jamais seul. Euh, autour de a des il y a des joueurs des joueurs. mbégte am gannaaw nag ba ñu tabee ngir ñu bokk ci ñaar fukk ak juróomi entraîneur ñu gën a xarañ ci at bi li mel day fësal liggéey ba ñuy def ni am na solo lool ci équipe nationale bi ma si jaajëfal bu baax a baax euh, samay joueurs nekk noonu staff technique bi euh, ak staff médical bi fédération bi ak ministère des sports daanaka li mbégte la ngir football bu Sénégal li mel nag bu mu ne am tamit joueurs yi joué nañ ci bu baax a baax ndaxte ñun ay techniciens lañ waaye ñoo ñuy permettre ngir ñu mën a tamit am ay résultats. en tout cas mën nañ jàpp ne kon li ñu mel day wane ni daal ñoo ngi amal liggéey bu am solo ci équipe nationale bu Sénégal. ça prouve vraiment que nous sommes en train d'abattre un, un très bon travail et que ce travail soit reconnu par ces instances-là c'est c'est encourageant. baax Aliou Cissé jàppale nag boobu la liste tamit am na beneen doomu africain bu ci bokk muy Jamel Belmadi mi nga xam ne mooy tàggat équipe bu Algérie di fàttali nag ni euh, boobu la trophée ci at mi ñu génn kii di euh, doomu français bi nga xam ne mooy tàggat Didier Deschamps moom moo ko jëloon. Euh, basketball port moom moo euh, nekk champion des deux. waaw jàppale kon union sportive et culturelle des travailleurs bu port autonome bu Ndakaaru kon démb moo daan nag ñi di waa USPA 83 81 ci finale D2 bi kon nag port moom nag moo nekk champion kon ci D2 bi waaye nag teewul muy port ni ki noonu du euh, USPA ñoom ñëpp nag kon accédé nañ nag ci national 1 bi jëm ci wàllum basketball ba tey wàllum basketball jàppale nag kii di. Amane Niang mi nga xam ne nag moom moo jiite lii di waa FIBA moom nag waxtu wi moo ngi ci diwaanu Sénégal jàppal ne kon tey jëlee sax bu nag 14 heures kii di Matar Ba dina ko dalal foofu ca makkaanam bu ñu ci jógee nag kii di Amane Niang dina jàkkaarloog taskati xibaar yi ngir dikkaat bu baax a baax nag ci euh, liggéey bi nga xam ne moom moo ko indi fii ci Sénégal kon Mame Mbaye li ma fi doon fës jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante rek dig daje bu douze heures ak Birame Diadio Touré 13h El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. Birame Diadio daaw Ndeye Khady Diouf <laughs> donc moom ngay ama rendez-vous. kon nañu xaar ne xel yi jaajëf. jaajëf Pape borom jam sit Dogar pàcc bu mujj bi sa xol bii de jotaay xibaar ñu ànd si xel jamais day dara. Jumia bi leen indil Black Friday moo leen di may seen revue de presse. bismillah. am na ñoo xam ne ne woon dañuy defante ñu de sur quotidien ne Dakar Ndiaye suut la daloon kon 2021 bi la weeru mars ba amaat fii mar di tali ndax convocation Barthélémy Dias ca kanamu cour d'appel bi ci Dakar Ndiaye Jal Diop Atemba ak Ndiaga waaw daal di nañ aj nag ba benn fan ci weeru décembre bii di dik laa wax waaye gis nga Barthélémy Dias Ousmane Sonko Alaaji Malick Gakou waaw dañ leen a jàppoon ñu ñibbi <laughs> allahu akbar le quotidien ne kaane du may démb ñu bokk waaw gars yi dal nañ seen kaw tàngoon na lool ginnaaw ga nag la sedd na nooy ndaxte gis nga kii di Ousmane Sonko Alaaji Malick Gakou ak Barthélémy Dias waaw dañ leen a caxacaxate dàq ji leen a ah, ci Barthélémy Dias bi lé ak Ousmane Sonko ak ba ci Khalifa Sall laa la wax parce que dañ leen a dóor ay grenade lacrymogène gaasé leen dàq ji leen teg loxo ginnaaw ga lañ leen bàyyi ñu ñibbi Ousmane

yi nañ leen de baare tamit VDN bi laa wax ni ki waaw démb kay Dakar Times nee na Ndakaaru njaajal Joob daanaka dund na deuxième vague ba laa la wax aa waaw parce que nag gis nga tension bi démb foo ko na weesu nu ko laa la wax ca Petersen gëlay aa waaw waaw waa bi ci boppam ñoo doon jéem a bloqué convoi kii di Barthélémy Dias nga xam ne Ousmane Sonko kooku ngay démb ak Alaaji ak Khalifa Babacar Sall yéene ko ba benn fan weeru décembre waaw teewul ay affrontement xeex am na ci diggante militants yi lée attaque der ja Khalifa Sall waaw nee na gis nga date yi nga xam ne moom la ñu di premier décembre baaxul parce que day tombé nag Barthélemy Dias nekk ci pré campagne ba et nañu waaw nekkul ne Barthélemy Dias wala say avocat ñoo sàkku nañ leen ko ak ñeneen ñi amuñu woon avocat ña nga ñëppatiti patata dama ne loolee tegul fenn gars yi ci boppam ñoo bëgg a neutraliser Barthélemy Dias te kenn nekkul ci ginnaaw lu dul état ak wàllum justice bi ñooy man Khalifa man lan laa wax ñu laa la wax maar di taali waaw Déthié Fall ci Vox Populi ah ne xam nga ngay xalaat ne opposant yi man nga leen a suul yow daal réew mi nga bëgg opposition bi ku ne di leen suul daal réew mi nga bëgg daal réew yow yaa bëggul jàmm yow direct news ne atew Barthélémy Dias ba tey Ndakaaru Ndiaye jël Joob waaw mbir mi jax na démb de dama ne la journée démb bi lee ndaw yi ci boppam ñoo déterminé libéré kon seeni leader yu bokk ci yeewi askan wi dëgg la ay jàmmaarloo yu tar diggante militant yi am na ci ay gaañu gaañu sax laa la wax gis nga Médina Fass université fa lañ dama ne la Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko Alaaji Malick Gakou waaw takk der yi dañ leen rek loxo yóbbu leen ca camp Abdou Diassé ginnaaw ga lañ leen bàyyi waaw Khalifa Sall ne danañ continuer di xeex ngir wàllu manipulation jëf yi ñaaw ji la bu mu tasaaroo ci réew mi yéeni kaay Pape Diogoy Faye bi ne waaye yeewi askan wi day seen test bi réussir nañ ko démb de maa la ko seen résistance bi dama ne am na lu mu jur moom kay nag bu doon xeex la ah yeewi askan lañ ko defante ñoom ñeng ñeng ñeng patiti patata ah, waaw daw laxtu la ñu def di raser les murs Yankhoba Diattara ak Moussa Sow dama ne la daw laxtu la def kenn gisu leen yéene kaa gi ne waa yaana maar day xamal nañ nguuru Macky gi lu bariwul ci aatew Barthélémy Dias bi lée nañ moytu xewoon xewaat ci réew mi di mars mar di taali Macky kay fi mu nekk nii nag boo bëggee dégg-dëgg 24 nee na sës na de Ousmane Sonko ne dama ne jàmm mënu fee am docteur Boubacar Sadio waaw nee na diñ fii su Sénégal yëpp waaye jug leen taxaw Seybani Sougou ne Sénégal day waxtu yu nag jot na ngir njuuma lii ñu de ko loxo arrêté ko njuuma lii ci boppam la ñu war a arrêté le mos l'observateur ne coowal Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf waaw tey man nettali leen nag lépp mu demee Cheikh Makiyu Sibi moo ñëwoon ca ate ba waaw nee man maa yóbbu ñoom Ndiaga Diouf ca mairie bu Barthélémy Dias man Sibi garde corps Abdoulaye Wade laa woon ma woo téléphone convoqué ma par téléphone waa ji laaj ma sama adresse samedi le 6 novembre bii passé mu ne dina dikk ginnaaw ga mu mënatul ñëw parce otoom daa baan ak loolu yëpp teewul ñëw na te man maa sàkku ngir buñ may atte samay avocat taxaw ñoom maître Sall te fii kenn nekku fi Barthélémy Dias ci l'observateur ne ma de tribunal laa dul delloo ti Macky Sall day na nooy Macky Sall na nooy la woote ku dem jàmm la raati de fi mu nii ah waaw tribune yéene kaa ne responsable préfet ci boppam moo ñu tegul ci condition yu baax waaye ñun minuit zéro heure fii ci préfecture bi la ñu fekk mu ñuy teg pression Aliou Sow Ndiaye nee na xew ci Pikine gii kenn mënu ko nangu inadmissible laa la wax magu ngir éliminer ñu duñ ci d'accord yéene kaa gi ne waaye yeewee askanu Pikine googe dugal nañ recours ca tribunal ba de le quotidien yéene kaa ne waaye yeewee askanuy maatam lañ bëggoon mujj nañ koo am de dañuy bokk ci élection yi de parce que justice bi jox na maar day taali xudur jaw mi jiite waaw nee na parce que ak wàllum investiture yi mosuñoo boole responsable réew mi ci seen waxtaan ya te waa Benno Bokk Yaakaar def nañ erreur bu rëy tànn bi nga xam ne moom lañ tànn maire bi Beydi Ba nga xam ne daa impopulaire nit ña xamuñu ko Beydi Ba tojul fenn xudur jaw ci 24 waaw nee na ma kande mais réew mi Médina Gounass danañ jëf seen kéem ti laay kattan ba Alioune Sall mi la ñibbi Géej waaw fay écarté mënu taw ñaan termine yéen a kaay ak vox populi ne boulanger yi day lakkatu mburu ya commencé waat nañ tey yéen a ne xale yi nga xam ne dañoo am jabet xale bu ci feebar ñaari semaine topp doowuñ ne da ngay dee allahu akbar te ci ay gone daanaka jabet bi dugg leen fii ci Sénégal réew mi quotidien ne waaye ndakaaru njaay jël jóob ñii xaru moom bari nañ de lu tolloog téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay doomu aadama góor ñu ci bari moom seen xaru yëpp mbirum jigéen a leen ndomba ci ndakaaru njaay jël jigéen yoo xam na nag maanaam ñoom la tooñ ci coowal passeport diplomatique ya waaw atekat bi convoqué na leen de deuxième cabinet ba waaw yéeni kaay groupe Futurs Médias gi ne loi de finance bi day tey nag ma jox leen ay secret yu budget wu 2022 bi lé Antoine Diome ah jox nañ ko 5 milliards 200 millions eh way Samba pour élection yi tax waaw waaw Abdoulaye Seydou Sow ngir mu defaraat cadre de vie moom it laalal nañ ko 42 milliards laay lay la laa Abdoulaye Diouf Sarr ministre santé a ah. moom it yokkal nañ ko 19 milliards laay laay la laa milliard milliard milliard milliard ndaw lu bari <laughs> waaye milliards yi de ak lu ñu bari bari bari bari bari bari bari bari bari bari te Macky Sall ak Antoine Diome waxuñu kii naan suñu pétrole bii milliards yi jëriñul dara parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ne la alaaji tëjal